ngel bi ñëw eh, na waaye. naaj naa bu fi nekk di fi indi ay problème ay xuloo yooyu loon de. yow yaa ma sonn ma nekk jeex tàkk ni lekk ma naanu ma. ah hmm? chance la. sonn naa sonn man ma woo koom nga amul sonn. Ah, si teeru la. la doon xaar. tu te fais encore du beau. Hmm, tu ah hmm. trop. J'adore, tu m'avais trop manqué. Regarde comme tu m'as ko ci li mën naa créé problème ci ko ci problème bu rëy ci réew mi ah moom bébé ñëw na bébé ñëw nga ñëw nga. di de mari naa maa nii. waa hmm. mais yow looy tuuf fii di xulóog man di am ay far di dem ay Maroc. def ay genre affaire pour ma yow yaa xaw yéen a ma teg dil. sama far. dama yaakaaroon yow yaa xaw yéen ma teg dil. waaw tukkee ndookat. Marina fenkat bi ñëw fi yow naan ma moom wax ne da ma yaa aw laa doon yóbbu yem ci lii que ma ne non loolu c'est pas vrai piège ah bi suñu waxtaan rek doy na. xajul fii ñu dem ci biir jiitu ma topp sa ginnaaw. Ah d' accord ah dama lay remercier ci cadeau yi kontaan et mais nag dafa am na fi jot a xew ci kër gi tu am na lu fi jot xew xam nga yow fii toog semaine boo xam ne man gisuma la kenn gisu la di moo tax foofu laa ñëw ak yow bi ma léegi gunge keroog euh, aéroport yow jege bi ma lan la xam naa ne moom lépp lu xew ci kër gi sama ginnaaw der wi duñ ma ko wax waaw léegi dangaa bëgg a wax yow man damay nettali dama ko dénkoon der bi ba ngay dem moom laa lay rendre compte ni waaw wala dé alors Guelmo euh, Lika je rappelle. kan mooy Lika. Lika Guelmo mbay moom tam mooy numéro yi ba ma la fi naree woon rey rek. ah ok. lan ma bi ma waaw. yaa tax yow lu ba tey ba tey ok bi ma lay yóbbu euh, man ak moom tase nañ aéroport yéen a bokkoon benn yoon bi ngeen doon jël mbay daa tegoon yéen ñaar da ngeen koy complot. wóor na daf maa ngi moom ñoo bokkoon benn yoon. yéen bokk foofu xam naa da koo gisul rek. mais yéen bokk foofu business laa jël. waaw moom it business la jël. jëlul business bu jëlul ma gis ko. gisoo ko. daawoo mbay ak ma gis ko bu ma rangalee ak moom. léegi loo bëgg a wax xale bi économie lay jël. non maay raam jël sax raam mm-hmm. bee la jël beneen air bi may wax. ah yow loolu loolu mel nii woon naa la xale boobu dañ koy teg dil damaa bëgg nag loo dégg ku ci bàyyi xel nit ñaa ngi naan mari daa dindee yaa lii ko nit ñaa ngi wax lu ne dama lay teel a avertir. sa capacité man bu ma ko romb na foofu dem fii nga bëggoon rey ndax ay deux cent euros àggale. sama capacité romb na foofu mais li ma lay tegal damaa bëgg boo ko dégloo nga jàppee ko sa xel te bañ ko jàppee sa xol. sa capacité la xale bi xale bi laa teg ci axe. dama ko teg ci axe di wax ak moom mbay nag fi mu ne ni mu ma jaxasee ak yow rek lay wër mais bala moo si ci yow dama la koy teel a wax rey naa la foofu. yëkkati xale bi ndax moo yor urée. correct dañuy séddoo dañuy séddoo. ñoo laa faral ba nga dee ne ko mbay buggul yaa teg ko fenn yow la jox bopp xale bi kontaan bég ma ko nag. xam nga jox bopp gi nit ñi dañ koy fogee dañ koy fogee foog ñu dëgg la moo fa ne ngeen fo ci seen dëgg ngeen nekk. Eh, xanaa yu déggoo li ma wax dama koy teg diir dama bëgg ma koy mbay di ko mbaraan loolu laa bëgg bu ma jëlee ñu séddoo xanaa nekkatuñu benn gan wala. waaw la nga ragal loolu yow. appel vidéo yow da ngaa dégg ci man ragal yow. waaw moo tax ma tegal la. boobu appel vidéo yi ci kër gi mel na ah, oh, ni tout léegi maale mbay bu coupé ak yow suba si ngoon gi mu link. man mbay mu link mu xuma ak moom de Ibou Ndim laa fa amul wax ak mbay. boo ko fay mbay dafa tàgguma ko. benn yoon laa wax ak moom xaw ma. waaw boobu noonu bu waxee ak yow suba comme ni góor ñi di def rek. suba si waaw waaw suba si. ngoon gi kay. ngoon gi kay. noonu la ko jàppee woon ak yéen di va et vient man nag ma jël lépp toog ci mel ni ku far moom mel ni ku bokk ak moom ndaay ak baay mu kontaan naan mari wul lii ko ma lii ko yëpp kay mar yàq la ko moo yaa. sama der bi nga ne. sàmmul ko dama ko xaa wax naan ko xolal yaa fooru fi yaa fi ne mu ne bu ñëwee damay teral. faal bett nga de. ah bett man dama laa wax dëgg rek déggoo li ma wax nee naa la après maa ngi ñooy pàccoo dil bi damaa ngi yow teguñu ko bu yàgg teguñu dil bi bu yàgg wala. mais là je suis déconnecté parce que man comprendre. mais nag moo tax ma lay ñëwaat ma lay waat comprendre nga d'accord nga ci wala d'accord ci. à une condition. Uh-huh. xoolal kii di ma woo. xam <laughs> Paccax waa. Marie la. naka la waay. namm naa de. ii sa voix bi daa naaj dama laa gisul kër gi xanaa nekkoo fi. maa ngi ci néeg bi. mooy yow liy tax kay kay. sa tata sa tata lii ka. lii ka. sa de ko ne. maa maa maa indi na xaalis bu bëri rek. Ah, kër gi naataat na. xaaral ma paas la ko. ma chérie. mon amour. Ça va bien merci toi. maa ngi si jàmm naka mu. yegsi nga eh, maa ngi nii di ñëw mbaa sonn. ma. maa ngi bu baax. maa ngi nii di ñëw. maa ngi nii di ñëw. Ah, ah. waaw maa ngi lay xaar. ok bisous. d'accord yaa raw bii deux suut. yow hmm. <laughs> ah yow yow yow yow lu moo tax mënoo sàmbalaa yow yow mënoo bàyyi sa jukkoom. c'est normal. ndax dégg naa sàmbul nga jógee. yéen ci wax jooju ma jug dem xooli te ci kër gi yow mari naa yow yow. nañ songoo xam nga yow xamoo bu saa yi. waaw war na la nga mën a sump. Ah, dem bàyyi kër gi ni almaam yore kër gi. ah mu génnee ay condamné yoo xam ne ay xale boobu noonu. waaw ñu indi ay cent ak ay fukki dërëm. dag may nax. Ibou Ndim di xawaree boppam jël almaam yi def ko papaam di ko woowee papa almaam yi. ah bon. si man almaam man rek maa dul bokk waa kër gi ñàkkal ma fayda dinañ aw ma part aw ma nekk ci kër gi nekk ma fi tëdd nelaw man leen ndax man kër gi yàgg ma fay def ay yëf ñu ne ma noonu. dañ euh, may nax rek ibu surtout ibu ibu ne ma loolu mosut am. am. waaw ah, man mosuma fay def ay teraanga ak yooyu noonu. Hmm. garaaw ñëw na. ñëw nga kay ba pare yow ah ñu tëdd man ak yow di waxtaan di relax añ ba pare. waaw war a lekk lekk suñu ceeb naan suñu ataaya tëdd war a relax sieste nga def lu la neex. te di nga ñëwaat loolu. non mais dañ ciy waxtaan rek. loolu bàyyi mu seen xam nga naka nga waroon def. Hmm. demande ma gentiment calmement kii kan la ma expliqué la. Hmm. mais bon nga jug nekk énervé wu mais loolu su ma la woon expliqué sax doo dégg. waaye léegi maintenant je te demande gentiment calmement ki doon la woo kan ah. nañ bàyyi loolu. dama yàkkamti woon gis la trop. waaw ah, mais <laughs> léegi la namoon nag nañ wax li leen nañ namante ko ba pare. loolu nañ ci débarré. xam nga lan moo ma rey. bi ah. bi ngay ñëw goo ma ne woon da ngay ñëw de mais gis nga bi nga ma envoyé sinap bii nii. ah bon bii waaw suba. waaw tey mooy tey. kuil bi surtout bii ne encore. di namm nga ma nag. dama laa namoon. dama yàkkamti woon tellement. heure bi 19 hmm. heures laa def. Hmm. ci sa kanam ci sa kanam gi laa ko gisee. <laughs> sonn laa def. Hmm. moo tax nga xëy nii rek ñëw nii te fajaruma nii nii nii fajaruma nii. guddi gi yëpp nelawuma hmm. dama amoon insomnie tellement di xalaat su ma la gisee. Hmm. émotion bi na lay nekkee. ndeysaan wala laa si di doo sax laajte Marina. ak Marina ni la bëggee fi mu la teg. ay yow elle est gentille. Ah, ah. dafa baax. waaw kay. xaaral ko. ah, ah. loolu ko sax laajte. Eh, ay bàyyi li ngay wax nag. laajte kay. instant bi yaa ma gën a intéressé rek. waaw c'est ça parce que nam nga ma gis naa ko ci sa kanam. Mm. Mm. looloo ko mën a téye. mën a téye. loolu du problème xam naa fi may jaar si ñoom. Mm. am leen ñoom ñëpp. su fee ñëpp respecté la. jox la sa gëdd. cum loolu daal bu ma ko amee rek kontaan. xaaral ma si ma si mi sama yére. ma dina ah. excuse-moi. dafa jàpp daa jàpp. dama jàpp nga ma daa am nga mel de. Marina. ci parole ma lii kaay nii. ma chérie. nag mën naa la. walaay maa ci la nekk. maa ngi nekk. naka voyage bi. ça va ça bien passé. ba sonn naa. waaw ma nag. est que xam nga ni kër gi misère nañ la ba ay bëgg dee. bàyyi li ah appel yi boo ko jotee. muy daw di ñëw di daw di ñëw xamal ni yow na mel la. dafa mel dafa doon dosé kat. jàpp ko de bari naa mii jàpp ko de. moo insisté ci appel bi de moo insisté ci appel bi de. tey loo leen añee. tey euh, ah amaguma de defe naa tey añ amu fi de. añ amul ci kër gi. dëpp ci am nañ dëpp ci waaye xam nga ni suñu diggante ak dëpp ci. ay waaye lu tax loolu. sax ah. dépense moo ñëw à mënoon nga ma woo tey suba wax ma ko. ay yow wax loolu dama lay bañ a sonal xam nga rek. nga xam ma jox nga dem lijjanti feneen. le temps après. tegu la loolu de marché tegu ma la ko de. rek ma loolu moom dama ko seetaan si kër gi dama ko mës a ah, loolu de tegu la ko billaahi. tegu ma la kii ok. ah. ay yow la woon lii de. def leen lu leen neex ay marché yi. moom bëri na di. <laughs> bëri na de ndëggu leen merci beaucoup kontaan nañ de bilaay bu ma génnee léegi dinaa woo koo may moom. ñu leen ma jàngaloon. Eh, bàyyi taf. office. Eh, ça va bien. ziar naa la. naka yitte. alhamdulilah yaa ngi cool. ah. APR sañ-sañ nga. ah waay bi nii nag da nga gis dama sangu rek for ko nii sol ko nii. déedéet kay wallaay APR def nga de. APR yow. mais naka la. maa ngi nii rek. mais namu naa la. maa ngi nii maa ngi nii. ñu yaa ngi ci jàmm. naka kër gi. waaye kër gaa yi nii dina namu rek. waaw mi ngi neex. moom ay gaa mooy ko de. noonu kanam gi mel noonu la ju ko mais asalaamaaleykum. <laughs> def. maa fi na ngeen def xaaral jot alhamdulilah bàyyi taf bàyyi taf lii lii ka na nga def ana waa kër gi jàmm rek kii moo ci kan ki mooy Marina ci kër gi la nekk Marina na ngeen def. waaw dara jotu leen. alhamdulilah xam nga rek. bàyyi mooy bàyyi ah waa ah, gis nga ñun xale yi ñun suñu bëggee ñun xale yi ak mbëggeel si yéen seen mbëggeel day am parce que damay gis nga toog na la Ngoné toog na le. waaw waaw waaw mais kii gisoo maa ngi toog ni mu xëcc ma. xam nga ñun juddu ñu jamonoy baraada suuf. waaw waaw waaw day am. <laughs> bara kii regarde lañ juddoo. ok yéen a yéen a toll ci baraada suuf bara woo. waaw waaw waaw <laughs> lii gaa mm-hmm. dama koo gis. koo mm-hmm. jox. ah waaye toogal yow it. da jox dépense. baax na jox nañ la dépense. maa ah yaa ngi dem. eh, eh naa ko tegal ngóone mbaay. bàyyi taf léegi damaa bëgg ñu waxtaan tege si ni kii kay xaw ma lu mu fiy def léegi kii mooy ndiika ndiika yow sama père nga waaw ah, dëgg la maa la bëggal sama bopp ah, lu ma dugg dama la ciy boole mm-hmm. dama koo bëgg a takk ah, te su ma koy takk mm. yow yaay ñaani jeex na <laughs> man dama laa wóolu nit day am kilifa waaw waaw moom kay fi nii kii nag mm-hmm. dama la ciy wax yaar xale bu baax la ku am jom a ngi nii xale boo xamante ni koñ bi mu dëkk kenn yóbbu ko ba mu juddoo ba tey lu baax lay def tuxul naanul doxul kenn mosu koo woo téesante kenn mosu koo tam dem kon baax na ah am ngay foo xamante ni de boo ca duggee <laughs> dina nooy de <laughs> kii daal li ma bëgg see waa kër bu mu yàggal dara ñëw ñaan ñu may la nga dikk ci kër gi toog comme lu baax kenn lu ko yeexal daa am dafa bàyyi baax ko yeexal ah, ah bàyyi taf nag waa ah. waaw mu ngi noonu nag léegi daal mi ngi nii madama ngi nii jeex na léegi dinaa la yónni mbay lii lan la jëlal mu ne. yaa may ñaan si bëgg affaire yi gën a gaaw. fos sa dara. Ah. jëlal rek. da may lii. Ah, tax gi nag. damay baate rek. akbar caa yàlla. ñaar. ne ñett doy na man tara man tarante day di si man mbay wax ci waay teel loxo kii. bàyyi ma dolli rek bàyyi ma dolli. waay tamit. jigéen booy takk da ngay seet jigéen ju am valeur. Mm. waaye takk ñoo xamante ni jour bi ngay takk ngay commencé am hôpital ba mu màgget. <laughs> mooy ki ma la wax ne. waaw kanamu ci bët. boo ko takkoon xam. jour bi leen di séddale gros jour boobu lay feebar. <laughs> lii nag yàlla na doon ay bee màkk. amiin defante nga koo xamante ni billaahi cam. Mm-hmm. bu ma ñëwee say mbokk nañ ko dégg de. Ah. lii nga def nii. ah rëy na ci man de. Mm. rëy na ci man mbay xamoon naa lu baax ngay am. Mm-hmm. ndax da nga yaru. te kii ko gis xam ni ku baax la. waaw sant wa. saw saw pëllo jéeri borom nag ak meew. Mm-hmm. yow doo mën a ñaaw. mbay kontaan naa de. Ah, kontaan naa kilifa jeex na. ci dëkk bi ñu nekk nii. jeex na yow laa jiital. jeex yaa ngi dégg lu may dugg ak lu may génn yow da ciy bokk. yow daal waaw li ma bëgg xam mooy. Mm. kañ nga bëgg ma dem kese. bébé kañ nga bëgg ma takk. saa yoo pare pare la hmm. boo bëggee tey sax. waaw loolu war na ne pare la. yéen na kii ya pare nag. kuy wut ku pare. Hmm. kii ya pare. pare na ci poos pare ci jikko pare ci ah mbay doo ci xaar. Hmm. bu soobee yàlla àjjuma. nawet sa noakar ñu nekk ma. di nga dem waxtaan waaw ah lan lan la ciy xaar. seetaane dafa bëri doole te kër gii ma gis. si si. ku njool ki baaxul de. bu yëgee ni yaa ngi def fii lu baax dina la yàqal baa yaa ngi koy sóoraale. léegi daal fi mu toll nii tàcc ñu ñett kese. te fi lay yam ñu ñaar ATR rek nañ ko takk ATR ba noppi ñu doog sa façon. àjjuma nga na jeex na tànk yi mooy kontaan naa ci yow. la gën a kontaan <laughs> xarit yal na sa jàmm yaa ngi kontaan naa trop a kontaan. mooy ci wax ji ci kër gi nag. ay dugg ak génn ak ay boo ko fi am de. ah kii toogoon nii nag gis naa ko waaye kanam gi ne wóolu ko. <laughs> yow li ngay wax silencieux ak kii rek. ndax am na ñoo xam bu ñu déggee yàq. Mhm. te genre nit yi wóoluwuñu sa xol sedd kontaan naa trop. Ah, kontaan naa trop kii ba ma ko xoolee laa xam ne borom woon sa jigéen jimiñ nga dafay baax laars. <laughs> waaw waaw waaw dégg wërsëg moo mel noonu. gimi kee jigéen joo gi peew. ma xam gi peew ah. boo gisee jigéen jigéen nga baa laar sa maa lox mel nii lii laa nam ko fii géej ah, seetal ji rek kii xam nga ni peewul baa laar la ah, ah, jee na borom wërsëg mais bàyyi taf hmm. fan yii passé yónnee nga fi yónnee nga fi ravitaillement bu am jom boobu kii yee fi nekkul woon hmm, nga yónnee fi ravitaillement bu am jom yàlla moom moo ne boo defee lu baax ma delloo la ba wis la xanaa du lii yàlla moo ne sant leen ma dolli leen ñaan leen ma may leen. waaye ku def lu baax ma dolli la. la ma ca financé woon mënul lii de yàlla dikk na ba wis ma. waaw ah, <laughs> lu baax lu baax la. ay mbiru yàlla lu baax lu baax la. mais looy xaar ci Ngoné bii nii. Ngoné maa nga ca. Ah. maa nga ca de. Hmm. ah yow it Ngoné kat tooy <laughs> neexi hmm. ah, maa nga ca de. waaw yàgg na. Hmm. yàgg na. J'arrive, je vais prendre un café. J'arrive. Oh. Okay. fale tola tuwa Sali Dieng du moom Sali Dieng non non moom ko jaawale wallaahi hmm. kii de bu dee bu bu réeroon jàpp ko ni Sali la de ci gi la dëkk waaw waaw waaw ah yàlla gis nga li may wax ci yàllaa ngi. waaw tout le monde deux personnes. <laughs> ñëpp ñaar lañu rek. <laughs> tu vas bien. am nga jàmm bu baax baax. ah alhamdulilah foo jëm. je vais faire un café. waañ bi. kay kër yi xam nga ne dara am fa. comment ça. ci nii sax fii mais kenn amul de. je fais ah ah, demee baax na. denc jéem a teg dara. quarante mille. dix mille daw na ci kër gi. bébé. lii daal naa ko de. <laughs> dama ko namoon nag. maa ngi ko raw. yaa ngi koy wutali këyit nag mu topp la. waaw kii kay alal jëloon leex. fu ma taxaw mu taxaw. mooy dëgg de boo ko deful du baax de. xale yi nekk dëgg. dama koo ne nit. Hmm. nga war ma photo Sali dafa waddoon. ah yi kiif kiif. neexi de anam. neexi de waaw. neexi de su ma juum génnoon na de. Ah. génnoon na de noonu rek du tàggoo. ah woowu la. man naa am te mu wax ma portable ba ne ca kër gi rek. Ah. waaw waaw. Ah, génn na mais xam naa mi ngi ñëw léegi nii ci ah, kanam. mi ngi ñëw parce que man boobu kii rek laa doon xool xam nga tal moo la xew ci kër gi ak. la doo ne ci leen di xool yeneen sax loolu baaxul. ah. Eh, de eh, may ëpp naa def bàyyi ma def rek. moom duñ la bàyyi. da fii yéen boo ca duggee ma yendu de. ay toogal. <laughs>

baal baal baal mooy lan loolu. non non loolu suñu yëf la maanaam moom dafa miinante. dafa miinante dafa miinante pour parler c'est pour deux quoi. kooka la kooka la. ah maanaam kon kon du nag. ci loo ne. lool. ci affaire almaami bi lañ demoon toppatoo parce que nag fi mu toll nii luy jot jot na mm. parce que comme li ñu jot a xale pendant des jours te mënoo fexe ba xam xam fi mu jógee. Mm. comme nag am na ku mu doon waxtaanal moom mu xamal ko ni ñooñu fi ñu dëkkoon ñi yoroon almaami dañoo déménage dañoo tuxu léegi nag ñoo xëy suba teel woo ko xamal ko ni dakaar la nekk ñuy wax parcelle unité 16. foofu lañ demoon pour jéem a toppatoo xool kër geeg yooyu mais mm. malheureusement bi ñu demee fekk ñu leen fa Ibu Ndiaye wax dëgg fa nekk yàlla sama yoon nekku ci kaw almaam bi may sa. kii kii nit ku baax la kii amul non non non non mais may sa attends yow comment ça fait non non non déglu ma sama rakk nga te bëgguma chaque jour ñu am may sa jàppal ngoone mbaay et que xam nga ni almaam mi sama xol la. ngoone mbaay man li am laa la wax de sama yoon nekkul ci wóorum almaam moo tax ak sa kanam gu romb di mel ni rond-point case ba. gis nga kii. kii war nañ jug ci moom ah. kii war nañ jug ci moom man. waaye yow kii yow. dañ koo war a génne kër gi. boo bëggee dégg-dëgg. oh. ah. bio bio. comment ah, Toi, tu n'es jamais sérieux. Oh, câlin, câlin, câlin. Tu m'as fait manquer, ça va? ça va bien manqué. tu tu vas. je vais bien ça fait un très bail qu'on te voit pas. <laughs> bon, ça va. Bon, tu sais, moi, je suis tout le temps dans le business, quoi. Ok, et les affaires Ça va, ça marche, en gère. Tu es trop belle, charmante et respectueuse, machallah. <laughs> Merci, c'est gentil. Oh là là, viens, bye. Dans le salon, je pense. Dans le salon Je vous laisse parler. <laughs> Après, tu me rejoins. non. Eh, eh. Comment vas-tu Je vais bien. Mmh. Et le voyage Ah, ça va, ça a été. Tu étais où toi Tu sais, j'avais un business à régler. Du coup, voilà. Business. Business. Euh, business. Madame job quoi. Ouais, c'est C'est quoi le business <laughs> Non. hey, <laughs> faut eh, arrête. Non, non, non, faut pas laisser. Faut, il faut, ouais, il faut préciser. Je vais te laisser même. Hum? Je vais te mettre dedans. Dedans Quand je vais mettre dedans, quand je vais essayer de, <laughs> essayer de dedans, il faut savoir qu'est-ce qu'il y dedans. Mais je vais t'expliquer, t'inquiète pas, c'est sûr, euh, tu vas gagner de l'argent, c'est comme ça. Je vais gagner de l'argent. Vous faire quoi même Ah, ben tu vas faire tes projets. Attends, on, va commencer ici, dans le temps. Yo, ciao, eh, salut gars. Ah. <laughs> <laughs> kii du rafet mu rafet mu neexi ree déggal lii <laughs> noo ma gisee loolu xale yi naan sañ ba ni muur waay ndaw sàmba cëw tubaari kàlla mbokkum ndeyum sëyna bu cuun cuun demba yaasin saagoor baaba yaasin saagoor alfa ma ca balakos ma ca ndal tubaarikàlla kenn du yow. li ma xool ci yaw bu bëgg la maa ko xam. Eh, eh, eh, tubaarikàlla déggal lii. loolu laa xool duma ko laal. da koy laal de da nga koy laal de. du ma laal. ma wax la benn mbir. sama maam. Mm-hmm. boo ko daan tagg ba mu yàgg. waaw bu mayee ba mu jeexal amatul mm-hmm. lu ma la may dalay dekk leex ba ne la mbéjal. Ah, nga ne ko fuuf mbéj mu toog. waaye tubaarikàlla bu ma déggee sa lex. waaw waaw waaw teel nii. sa lex bu ma ko déggee du ma ko bañ. <laughs> yow bu mag laa tubaarikàlla defal la sa maam sama maam nii la daan def tubaarikàlla du ma def ñu gën a defe naa à bon entendeur yow jaara rey lii yow yow tu vas mourir bi vieux bu baax bi nga fas sa kanam noonu yow am naa lu la dàq mi ngi nii toog ngay fas sa kanam c'est Fiona ci gaale bi la dëkk mais jotoo leen xamante jotoo goo leen gisanteeg yooyu kii mooy liika moom laay waaj a takk Lika Fiona Excuse-moi, enchantée. Ça va Tu Waaw. kontaanoo ci moom neexu la wala lan mooy problème bi. non y a pas de souci les choses. J'ai rien dit, moi. Hum. Hum. bébé. et toute belle en tout cas. waaw d'accord je sais. waaw léegi nag Fiona man damay jóg. eh foo dem. maa ngi ñëw. maa ngi non non non ah dañuy du may toog. lu fi ngoone Mbaye def léegi. Hmm. man dama koy def. xanaa ma taxaw nii taxaw nii bàyyi taf taxawoo. aj la wax la sama sant ni la man sekk laa sant. sekk waaw kay sekk ndaanaan. Hmm? sama góor. Hmm. boo. ci kaw ba ci suuf. merci di sañse lu baax. Mm. di def lu baax. Mm. di ma bëggal may kontaan. moo tax ma bëgg la. ci kaw ba ci teg ci kaw ba ci suuf. c'est ah, ma ah, la. gën a bëgg. Oh la xam naa ni mënoo mais jéem nga quoi oh merci beaucoup oui ma. Ah, ma jël sama mbubu ak sama kii parce que dafa am fii ñoo xam dañ may commande jëlee sa saak ak sa téléphone ma woon la. Eh di nga fi de. soo la yàlla yow fi wéet de nag eh. man yaa am bu ma bu ma def lii de bu ma def loolu de def lii supprimer lii. supprimer lii waaw yow. ma loo bëgg mm-hmm. añee tey. lu ngeen togg. ah yow laay laaj loo bëgg a añee. lu ngeen togg rek. <laughs> ndax xam nga toggaguñu dama lay laaj yow loo bëgg a añee ma dugg ci waañ bi préparé la ko lu la gën a neex kus kus bu eh? <laughs> vidéo bi laa fi am nag moom nga def maalax li <laughs> daal seetal yi xol yi mën a gisee rek eh. kus kus nga def nga fekk moom ngay waaj waaw waaw moom laay def nii ah, xaaral ma dem seere ko eh, loolu olof yi naan wari wa dem na kën waxi mag dem daañ taali bàgg war na mbaam mm-hmm. ak waaw kañ la nit jàpp bis yaa ngi bëgg yàgg di <laughs> ah, man la yow laa doon déglu moo may dégloo te ma lay déglu ma fi mu jógee da nga ni yow laay déglu waaw te nag ay mag bu ñuy def dara dafa war a gaaw ndax cat dafa gaaw loolu dëgg la moom am déet mm-hmm. hmm? xaw la bés bu la arrangé rek hmm. mm-hmm. jeex na balaa loolu sax damaa bëggoon ñu waxtaan ci benn côté. Mm. waxtaan la mais aussi tamit dama lay remercier. ndaxte amoon na bës fii kër gi xawoon na doy waar. bu mm. baax a baax a baax a baax. Mm. ma tolloon ci ay situation yoo xamante ni bunt bu nekk fëgg naa ko parce que parfois day metti trop trop trop nga ñëw ah, ak doole. <laughs> macha allah kër gi boobu ba tey amul problème mu dépense donc loolu aussi maa ngi la ci remesier bu baax a baax a baax et di la. di la maanaam di la rassurer ni hmm. même boo ko amul man dinaa la ko fas yéenee muñal mu am ak mu ñàkk incha allah waaw xam nga <clears throat> def li nga war a def ak fan ko war a defee fi ma ko defee fi laa ko war a defee dëgg la am déet la kon kay sama kër laa ko def rek loolu jarul remercier <laughs> sotti ca ak def ca benn rek am déet dëgg neexul moo ko fi deful dama koy def feneen Ah. waaye ma def ko fi ma ko war a def. <laughs> waaw dëgg la dégg ma de ak biir. <laughs> bu ko def feneen. na yem fii rek na yem fii la yem. fi la yem. <laughs> waaw ba defee dañuy xool. Marina. moom naa la. ci loo nekk. ci loo nekk. ça ay si jàmm. yaa xëyee nii. gis nga de. kaawam mbay gi rek tey moom damaa kontaan moom. waaw yow. kër gi de dara amatu fi. li fi bàyyi di taf defoon as néew lépp jeex na. yéen a da ngeen a mën a yàq. moo ma tax a jaaxle nii taxaw ne ko mu ngoone maay. ko moom mun ngeen ko moom raak moom da ngeen koy def. nekk rek la ñuy def fi ñëwee keroog indi fi ravitaillement beeg tay nga bëgg na lépp ga sax na. kër gi daa bëri élément di. ana dépense kon dépense am fi dara am laa xaar di. Ah. ko moo koy joxe kay. yàlla da bëri na sutura wooy di muy def nii yàlla bëri na sutura bàyyi ma joxe dépense rek comme tubaarkàlla man moom tay yaa yàlla gërëm man mu baax mi man mi nga xam ne lu ma dund doyut. tubarkalla Sénégal ma bëgg ma am di terale tey terale waaw tey ma am tey man la yàlla gërëm. yow yaa joxe dépense tey. tey baax ma Fane Ndiaye yaaram baax ma. marina ko altukal peem. boobu ngay nekk ay xarit. mun ah. tafaale sama maam. dëgg du neex. Michel Fall mi ci ron guy gi tey daal man la yàlla may. yow kay ma ne. Eh. bu soobee yàlla fii ak ajjuma bii di ñëw. ajjuma lépp sotti. Hmm. am déet. ajjuma. dafa yeex. waaw ajjuma bu baaxee ci yow rek baax na ci. ah ajjuma gën bu ñu ko defoon. àll ba wala alxamis. jeex na yow bëgg la yàlla nay jàmm. <coughs> man koy xanaa loo bëggul waaye loo bëgg rek <laughs> yàlla nay jàmm. ana almaami moom. almaami mi ngi fi mi ngi ci biir. Ah. waaw mi ngi ci kër gi ah. fi macha allah. Ah. merci beaucoup ci laaj bi kontaan naa ci. almaami yaay papa. waaw waaw ndeysaan. xam nga rek boo boo bëggee ginaar da ngay bëggaale nen ya ndax omelette a tax <laughs> baax na gis nga baax am na bi du bari booba nga boo moytuwul. Eh. dinaa dal masque booy ree damay lox barke yonente am na bi baax ah. mukk wala mu def ci tuuti poobar. waaw mag nag boo ko yoree yenn saa yi da ko ca sëllax rek xuuxal ko <laughs> ko ah. <laughs> a bandi ji mag seetal. tëdd benn ñaari doomu benn naari. waaw ma tëdd naa nga sax jalang laay def. jalang <laughs> maa ngi wër kon yow laay wër jot ma xaar ramaas ramaas ma ndax mën naa tëdd biddanti maa lox lu mel nii ngoon jaay maa jigéen aha parce que baax ak lay geetaloog te ci kolaa geetal yi lu nooy rek laa mooy na ma puus baax mm. mm. lan ma sama yaay loolu hôpital yi war nañ cee waxtaan de mag yi saw lal billaahi lañ leen ci waxtaan naa ko def six heures du jour. Hmm. Mm-hmm. man damaa jom ba wax waaye indi rek. dix mille ak kay dama koy jël ndax tey au moins kiy joxe ci kër gi loxoom mën a noppal ndax loxo bu yàgg tàllal du bu yàggee day toog. tey yaa jël maa joxe tey yaa nangu. waaw. waaye xam a lan laa maa fi bu ne mut buy wax. maa fi de. moom de laa loolu dara. mu fi ne moom maa joxe maa yor. barkalla bëgg naa la nga laalal ma maafe buy wax. yow maafe bu nduróog yow laay def. nga sa tee bi comme teewu maafe. waaw ah, wax ma waxal sama baax baax. dégg lii baax ma yii baax ma. ba nga tullanti ka ma soog laa baax. Mm, baax ma faal njaga yaaram waxal rek baax baax yàqu sa mbaax dara. Mm-hmm. faal njaga yaaram. ma de naa xale bu pare. Ah, dégg naa baa wax awul. dara awul maa ngi rëbb billaay kontaan. nekk leen ci li ngeen war a ne ngeen nekk fii man gisuma cin tegu gisuma dara ngeen nekk fi di waxtaan. nit ñi bu dee yow dong cin du tegu wax ko. lan mooy problème bu dee yow rek. cin du tegu wax ko sama barada boobu. marinade ma jot léegi def dix mille francs ne naa togg maa sa kër gi dara am fi woon. waxal sama yaa joxe ñaari junni. ñaari junni. dinaa togg maafe. baax nday bàyyi baax bàyyi baax àndandoo. Ah. mari ndaa taay njaay mi jar na de. njaay mi nag daal di yàq der xam nga man damay luuma naar. lu ma naar. macha allah kii nag dafa mu sa baax ni nga koy gis nii macha allah des fois ma kale mu dekale ma. te na sa jàmm yàgg. foo jublu yàlla na fa yiwu yàlla jublu looy jaay yàlla na jar yàlla boo lambale ci àdduna. ak sëñ yàlla na leen nit ñi di fekk di ko saxatoo. ak sëñ Marina maa la njëkk a tàggal. wuy ma man tey ataaya ma defuma dara. bu leen neexee sax bu leen topp. ñaari junn kenn day yow. tàgg ma dangaa baax ni baax. tàgg leen ku ñu baax ci baax ku wax seet mu baax baax jubali baaxee kër baay baaxee. ama wóor marina yàlla boo lambale. ñàkk baaxul ama wóor yàlla nay jàpp. ak fi réew mi toll. tubaarakàll mhm. ak fi réew mi toll. loo wax loolu luuma naar nga may wax luuma naar. luuma naar kon seen ma loolu. luuma naar gi lépp a ngi ci biir. luuma naar parce que sëñ ma marché bi. tàgg leen ma tàgg leen ma marché bi nag marché bi nu leen neex ngeen koy tuddee léegi. tàgg leen ma luuma naar. kontaan na. doyul ma dolli. moom kay toll nii. léegi yow maafe bi. teg ko en attendant ma dem wax ak euh, sama gars yi ci biti. tey man damay terne rek. tey yaay xool yaay buum yaay buum yaay seef ci kër gi li nga bëgg loolu lañuy ñuy def loo bëggul defuñu. toppal sama ginnaaw di wax. Eh! waxal ma waxal ma déggal li yaa baax. ma ci jox daal. ma dox la ci dara. waaw loo ci bëgg yow. Ah, maa la ko déclenché. am na xam naa fi mu jógee de man maa la wax ne Mariña moo ma jox ñaari junni pour ma dem marché bu la joxee ñaar kay doo ko paax joo man ak yow. nga lekk riba. da ngay lekk riba ma la. koy lekk. ah da koy lekk. riba ngay waxal. garaawul xaalis moom ji mënoo lijjanti xaalis fi muy dugg ak muy génn ak yëpp da a lijjanti garaawul jox ma ci rek bu man ci kanam ko toj. waaye xamal naa la ñaar bi. njaay mi de temps yi dox na mari vingt mille francs. mari lu muy jaay. moo man téemaa jaay. ah, ah, ah man kay client ngi nii bu taxaw te moom kay wax ma looy jaay rek yow looy jaay <laughs> doo lambale looy jaay eh eh wuy ma wax ma li jaay maa jaay ka fi nag nañ ko. Matia lan lay jaay ba nga ma looy jaay client ngi nii. beñe ay Ibou Dib ragalal yàlla. kene kene. yow de bul dugg ci njaay mi da ngay lambale de bul jaay eh. de bu dee café ngay wër café amul ci kër gi ñaari junni moo dugg ci kër gi te mari naa ko fi indi bu dee café rek moom baye boo nga muur sa muur say cër moom ni mën lañ noonu mu saf ku jóge wumra bul jaay de kii bul damaa jommi kii fan yi lu gisoo muy lépp paaka bi foog ñu paaka lay wër wóorul waaw ah, assassinat bi bari na ci réew mi de. genre yi deen ko moytu. moo tax ma nëbb paaka bi. baax na man ci kanam maa ngi ci sama. ah ma bàyyi ci wàññi man ci sa. lii ma jël sama numéro.